assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbok ñi leen ciar baax di ñaan suñu kaddu fop bu dam di leen baal haq tay baalu ñepp haq nak di ñaan ci at mi ñu dugg ato bu xewal ak atum kaaraange ci ko xamne amon nga ci benn jafé jafé rek wala ay galankor yu mën a doon ak suñu borom yalla na la ko teggé te ci haajo yépp ci barkeb Cheikh abdul Ahad fas yéeneen ci ñew ci yeen nak ñaan go xamne ni dañ koy baaxoo di def ci bis njëkk ci euh, weeru tamxarit bi bu la neex mën nga koo def ci guddi yi wala boo xëyee suba muy ñaan ko am solo ñetti yoon lañ koy jàng ñu fas yéene liñ cee ñëwoon nag ngir ñi nga xam ne a ñëw liir nii ñu koy waxee ñu waxee ko noonu rek ba mat ñetti yoon danaan bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima اللهم أنت الأبدي الخديم الأول وعلى عظيم فضلك وكرم جودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العزمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذهن على هذهن نفس الأمارة بالسوء والاشتقال بما يخربني إليك زلفى يا كريم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما kon mbokk yi ñaan gi muy noonu loolu ngay wax nag ñetti yoon ñi leen baal xaq tey baal ñëpp xaq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.